kii yi yéen a ko doon laajte agsi na le 6 mars 2022 arène nationale ñu ànd ci nag ak waa Diamond Events première édition drapeau Bamba Fall ministre conseiller maire Médina Jackson Junior moo koy bëree ak Ahmed Dem l'expérience fera face à la jeunesse combat spécial bi war a dox ci Boy Pire ak booy bari Bargny combat boobu la ñu tuddee nag soxna Astowaalo membre APR conseil économique et social waa Diamond Events ne dencal nañu yeneen i huit combats ci bésu le 6 mars 2022 arène arène nationale ci diggante Jackson Junior Ahmed ñu dinañu bëre ñu xeex ay ndaanaan tigi lañu mbokk yi suivre luttetv.com ñu ngi leen nuyu bu baax a baax di leen ziare ki ñu nag mooy Ahmed Diop mu tëgg combat dimanche incha allah rabi le 6 fii ci arène nationale bi combat bu war a dox ci diggante Ahmed Deme Thiaroye Cap Vert ak ki nga xamante ni moom mooy Jackson Guédiawaye mbooloo ñoom ñaar ñëpp yaakaar naa ni ay ndaanaan lañ. waa axlu làmb yëpp xam leen moom promoteur bi nag bi mu duggee ci làmb ba léegi mu ngi def li nga xamante ni moom mooy kéemtulaay kàttanam ñu ñëw fii rek fas yéene waxtaan ak moom ci journée bi fan la toll ci waajtaay bi dama lay nuyu Mouhamed bàyyi la nga nuyu mbokk internet yëpp ci loo nekk bàyyi yaa ngi ci jàmm. waaw Lamine ñoo ngi lay fay di nuy bu baax a baax <coughs> du nuy mbokk internetu Lutte TV di nuyu Sénégal du nuy surtout Géejawaay ma dëkk du nuy sama waa koñ nuyu waa axlu làmb lépp di bépp amateuru làmb. comme li ma ko wax rek le 6 incha allah février le 6 mars fii ci arène national bi yow yaa tëgg diggante Ahmed dem ak Jackson fan nga toll ci wàccaay bi. presque combat bi cinq jours moo si des wàccaay yëpp pare nañ pare nañ si lépp di ñaan yàlla jour jour ji jot. incha allah ñu bëre ko si fair play bëre ko si jàmm ñun ñëpp ñu am jàmm ñu ñëw seeraan ko ci jàmm ñibbiwaat si jàmm wàccaay fan ngeen ci toll sa diggante ak CNG sa diggante ak mbëri waaw waaw waaw lépp man na lu ma nu ma diggante woon ak ñoom ñëpp def naa ko waaw di xaar jour yi jot rek incha allah. di xaar jour yi yaakaar naa ne yaa ngi bëgg am expérience ci làmb ndax tëgg nga ay combat yu am am solo tëggoon nga fi yaakaar naa bébé bébé julde bébé julde Youssou Ndour tëggoon di jamteeri yu ci nekk boo ko tëggee amateur dañ lay wuy si secret bi lan la. waa secret bi liggéey. liggéey la rek ak di waxtaan ak nit ñi di waxtaan ak amateurs yi di waxtaan ak ku si mel ni Abdou Lahad Ndiaye euh, presque combat yu bëri moom moo koy monté di ko nuyu bu baax waaw di ko di ko di nuyu ñëpp di nuyu ñoom Dieye ñoom Baba jow ñoom Jimi njaay euh, ba mu ñëwee si làmb ñoom laa fekk ma topp seen ginnaaw waaw. Mhm. loolu daal ñooy ñoom loolu daal mooy secret bi terewul nag yow xam nga laam avant loolu. naa làmb parce que bari naa ay xaritu mbër. Euh, suñu kër fii rek ci école bi amoon na benn écurie bu fi nekkoon écurie Ndiaga saar fii lañ doon entraîné dama leen daan seetaan ak lépp bëri ay xaritu mbër daan dem stade tamit di seetaan bëri waaw. noonu la demee le 6 nga war a ñëw sargal Bamba Fall yaakaar naa moom mu nar a def. waaw le 6 la dañ koy sargal Bamba Fall nekk suñu nijaay bu baax a baax spécial bi tamit diggante euh, booy bar at booy pir suñu benn maman laa ko tuddee muy maman Asta Walo nekk conseil économique et sociale nekk nit ku baax ñu bokk dëkk fii Géejawaay mu yàgg ñoo jàppale waaw. lan moo tax Bamba Fall. Euh, dañ koy sargal parce que Medina élection yombul woon mu ñëw mu ñëw mu ñëw gagné avec la manière waaw mu nekk tamit nit ku bëgg liggéey nit ku fonk liggéey man ba ma ko xamee ba léegi si liggéey laa xamee waaw mu nekk tamit suñu royukaay parce que xamuñu ko tey xam nañ ko depuis ba mu nekk Italie waaw. Italie waaw di liggéey waaw. Mm-hmm. ngeen amoon relation wala boobu nga ko xam ne xam ko ci ak njàmbaar. waaw boobu mook sama tons ñoo bokkoon nekk quoi mook sama ay nijaay ñoo bokkoon nekk waaw. léegi lan lañ mën a xaar ci Ameth Diop ak structure am dimanche incha allah war ndax làmb tamit yaakaar naa ne amateur yi am na luñ ci moom mbër am na luñ ci moom supporter yi tamit am na luñ ci moom lan lañ mën a xaar comme innovation pour dimanche. waa làmb aadala ak cosaan dafa am partie boo xam ni sportif la am partie culturelle. li ñuy xaar mooy amoon nañ invité bu mag nag benn artiste bu jigéen pour sagal jigéen mais xam naa dafa voyagé quoi malheureusement dañ ko woo si diggante bi mu tukki loolu moo nekkoon surprise bi waaw mais dina am yeneen ak yeneen ñun indiwaat incha allah waaw bëgg nañ daal la siis nekk bu rëy boo xam kenn dootu ko fàttee ci Sénégal waaw waaw waaw bëgg nañ ko dina am ay surprise incha allah. Mm-hmm. leneen li nga xamante ne seetlu nañ ko ci ci ci ci Ameth Diop mooy chaque saison benn combat lay def lan moo tax loolu. jot moo ko mayewul wala day bëgg du day bañ dugg ci lu mu mënul. waaw bañ a dugg ci lu mu mënul ci la bokk jot bi tamit ci la xam dañoo yor yeneen liggéey waaw dañun ay responsable lañ tey fu may liggéey dañ ma dénk dañ ma dénk responsable bu mag mu jiite ay nit liggéey bi da lay tënk day metti parfois soo fi génnee 6 matin balaa nga fi dugg ay 21 heures ou 22 heures da ngay fekk sa sa njaboot gi nelaw moo tax bañ dugg tamit ci loo mënul ci la parce nit ki. Euh, bul bëgg maa fi nekk wala kii ba dugg ci loo mënul nañu def ndànk-ndànk rek chaque saison ñu xool lu ñu war a def ñu def ko ci jàmm ak salaam bañ see lor kenn bañ a lor suñu bopp tamit waaw. bi duggee ci làmb léegi yaa ngi ciy gis sa bopp. macha allah làmb moom xam nga bëri na bëri na ay gàllankoor nag bëri na ay gàllankoor mais dañuy sant yàlla bu baax a baax dañuy sant yàlla at encadre at encadrement bu ñu wër tamit di lañ sant bu baax ku su mel laat maa ngi koy félicité waat. parce que laat sa soo bëggee dugg si yenn yi daal la déedéet teel ni parce que à chaque fois sooy waxtaan ak moom soo naree dugg fenn daal dalay dalay canaliser di la conseiller loolu dafa baax tamit parce que comme ñoom ñoo jiitu si affaire yi à chaque fois ñoom dañuy tette duñu ñu wan yoon. waaw xam xam nañ lu ñu xamul. parce que tey ku def si benn affaire vingt ans bokkul ak ku si def un an wala deux ans wala trois ans waaw. objectif bi nag lan la. objectif bi mel ni ñoom Gaston Mbengue wala ñoom Aziz Ndiaye rek dama bay tëgg grand combat di leen di leen nuyu bu baax sama sama ay nijaay lañ ko su mel ni Aziz Ndiaye Baye maa ngi leen di nuyu bu baax baax di nuyu per Gaston tamit bu baax baax waaw. te sponsor gars yi ñu ngi ñu ngi ñëw wala. côté sponsor waaw ñoo ngi am ay nànk-nànk sponsor rek waaw. Hmm. Mhm. am nga clim loolu tamit daa mel ci kër gi la waaw waaw foofu laay liggéey te c'est la famille. Hmm. ñun ñoo ñun ñoo xam moom loolu seen normal. Hmm. que à chaque fois lu ma dugg ñoom dañ si dugg di leen di nuyu la PDG Cheikh Mbacke Gueye di nuyu toute la famille waaw parce que jàpp à chaque fois ñoom dañ siy jàpp bu baax a baax waaw. noo gisee grand combat bi jàngatal ma ko. Ah, ah, Jackson Ahmed. <laughs> Euh, nag Lamine. waaw que le meilleur euh, noo jàngatal ma ko euh, kan mooy favori. i i favori moom xaw ma kii favori wax dëgg yàlla xaw ma kii favori. ku dàq bëre. ku dàq bëre ñoom ñaar ñëpp mën a bëre nag. Ahmed Deme champion la Jackson champion la gars yi ñoo ngi euh, euh, la jeunesse face face à l' la gars yi du wax. Ah. parce que ah gëmoo. man gëmuma loolu ci combat boobu. waaw man tamit gëmuma loolu la gars yi ñoo ma xëy wax rek nee ma combat xale xaleek mag mais Ahmed dem tamit. Euh, waaw bàyyil boppam. moo ngi ci état de forme Jackson moo ngi état de forme dina ñaanal ñoom ñaar ñëpp ñu am jàmm am wér ba jour ci que le maire nag waaw. privé am na 2000 am na 3000 am na 5000 waaw. rendez-vous dimanche. incha allah le 6 mars di nuyuwaat di nuyuwaat ñëpp Lamine. Mm-hmm. waaw di la yow tamit sama waay maa ngi lay nuyu bu baax du nuyu buzz. waaw di nuy ñëpp di nuyu ñu nekk si làmb yëpp yëpp su ma limee damay juum mais maa ngi nuyu ñëpp maa ngi gis gars yi soutien yi ñuy indi. Mm-hmm. waaw maa ngi gis sama waa koñ tamit soutien yi may taxawoo. Mm-hmm. ñenn ñi tamit nekk ba Europe ñu ma nekk noonu Europe ñëpp gars yi dañ may woo téléphone. waaw ñu ngi siy jàpp bu di leen di di nuyu bi yëpp daal di naan yàlla yàlla def si jàmm incha allah jërëjëf Lamine. ah mbokk yi yéen a ko doon laajte agsi na le 6 mars 2022 arène nationale ñu ànd ci nag ak waa Diamond Events première édition drapeau Bamba ministre conseiller maire Médina. Jackson Junior moo koy bëree ak Ahmed Dem l'expérience fera face à la jeunesse combat spécial bi war a dox ci booy Pire ak booy bari Bargny combat boobu la ñu tuddee nag soxna Astowaalo membre APR conseil économique et social waa Diamond Events ne dencal nañu yeneen i huit combats ci bésu le 6 mars 2022 arène nationale ci diggante Jackson Junior Ahmed Dem dinañu dina ñu xeex ay ndaanaan tigi